audio yi maa ngi ko yor c'est un appel m'a donné les informations Ousmane sunko wax leen wax ju garaaw bu ngeen xamul ba mu ñëwee gis nappel maintes fois ci bureau anto euh, euh, kii nga xam ne moom mooy maaxam Diallo moom ci boppam dafa foog ni moom nappel renseignement généraux la tandis que déedéet moo tax ma génneel leen carte bi da ngeen di déglu nag bu leen nekk Sénégal di tëñëx tëñëxi rek lépp mafia la ma ni dama nekk ci système bi di am du di leen jox code par code code par code da ngeen may déglu ndànk attentivement loo xamul laajte leen bu leen attaqué bu leen topp ñële Mollah newul di waxantu rek da ngeen may laaj ne ah Mollah lan moo tax lii ma ne leen lii moom ki nga xam ni moom mooy euh, Ousmane Sonko bu muy dem bureau saa yu demee bureau maa xam jàll fekk fa Nappel Frédéric Nappel lu mu fa Ousmane Sonko wax Nappel wax ma ko luñ fa bind nappel wax ma ko may ñëw di leen wax li nekk ci biir bureau ba kan moo leen génneel enquête yi nga xam bu ñu defee lépp bu ñu leen woowee enquête leen ñoom ñëpp Ousmane Sonko ñëpp kan moo génne kayit bi rapport définitif bi bi nga xam ne moom la ñu yóbbu ku euh, euh, tribunal bi pour ñu juger Ousmane Sonko euh, chambre criminelle kan moo ko génne nu mu ko génnee. rapport définitif maa leen ko tegal ci internet bi ngeen ne ko jaxaran gis ko di ko liir rapport définitif maanaam bu ñu defee enquête bi yëpp ci Ousmane Sonko Adji Sarr tout kan moo ko génne man maa ko génne maa ko affiché fii ngeen koy liir yéen ñëpp ñëpp naan na jox ma rapport bu ma séddale ko Sénégal yëpp ku ko jox xanaa damay imaginer damay damay luxus ku ma ko jox te rapport boobu noonu maa xam Diallo moo ko am ak ki nga xam ni moom mooy le procureur Hamidi Diouf ordinateur bi lañ ko lokkotee ci biir ordinateur maa xam lañ lokkotee loolu ne ma ko jabax ma ko léegi Ousmane Sonko wax ni ki muy gis ci biiro bi te moom xamul kan la ñu xamal ko ne ko nappel la renseignement généraux lu renseignement généraux moo tax ma indil leen carte bi nappel garde corps Maham Diallo la loolu moo tax Macky Sall doon ko fekk ci biir bureau boobu ay renseignement généraux duñ toog ci bureau boobu li ñuy enquête yépp daf fekk nappel mu dem ba Macky euh, Ousmane Sonko bopp la mu xàmmee nappel mais kii Frédéric mi lu muy def fii ba mu laajte lañ ko wax renseignement généraux mais du renseignement généraux garde corps moo tax ma indil leen carte bi garde corps maa xam jàll te maa xam jàll dina ko rendre compte affaire bi du xeex man a yéen de du ay wax man ak yéen de affaire bi ci kaw laay xeex carte bi ma génne noonu maa xam dina ko gis ñoom ñëpp renseignement généraux yaa ngi fees dell sama sama laay bi saa du tëdd te duñ liir lu may bind déedéet. ñu ñëw xool gis nañ photo bi dinañ ko yóbbu dinañ ko yóbbu ci Maham Napel garde corps la ma wax da ngeen wax leen lan moo xew ci biir ci biir euh, euh, ci biir bureau bureau doyen des juges Napel ak Babacar Touré Kewalo yi nga xam ne avocat yi si boppam sax amuñu renseignement yooyu parce que nee na mënuñu ko jot da ko bëgg a xam wala ma wax leen ko Babacar Touré Kewelo bu ñu ko indee ay preuve yi irréfutable la teg ci taable bi moo tax ñu woolu nappel est-ce que xam ngeen ni Babacar Touré Kewelo teg na sax rapport de la gendarmerie ci table bi avocat mi nee nañ leen teg na ay ay këyit yu doy waar mais ba léegi waxuñu leen ko est-ce que xam ngeen ni ci table bi te wax naa ceeg nappel dafa teg avant ñoo woo nappel dafa indi li nga xam ne mooy rapport de la gendarmerie teg ko fa jox leen ko jox leen këyit yëpp jox leen audio tout wax leen ni nappel mais du commissaire Napel a été radié depuis Napel même ci biir police bi bandi salté la woon comme ni muy liggéey ak man da doon sàcc ay documents di ko génne Napel a été radié de police il a été radié de la police parce que sale boulot yi mu doon def ba dañ ko ci tëjaale tëj nañ ko ci moom Napel a croupir en prison oui il a croupir en m'a raconté moom jaar jaar bu mu nekkee ci kaso bi moom Napel et j'ai les audios ils sont là déggoo lu ma la amul informateur bu may waxal te du du du ma enregistré parce que li nga may information yi nga may jox day bëri ba nga xam ne mënu ma ko capter dama naan la dama koy enregistré j'ai les information de appel j'ai les audios de appel bu ñuy waxtaan man ak moom j'ai tout enregistré mi ngi fii portable bi portable xënt bii moo yor lépp tout de appel li ma ko wax moom mooy appel mu ne ma wax ma ne ko parce que moom nee na bu Babacar Touré tegee document yëpp police bi dafa paniqué exactement il a été radié radié en 2014 ndax ay affaire faux usage de faux yi muy def sàcc ay documents jox ñi jaay da koy sax jaay donc pour bañ a perdre bi Babacar ture bu mu joxee information yu taxaw yu solide yu irréfutable ci la police bi paniqué ñu woo nappel pour nappel ñëw ci la nappel ñëwee ñu laaj ko lan la toppee Babacar Touré Kewoulo lan lañ ko njëkk a toppee mu ne da ko outrage à agent Babacar ture ne ko mais yow tu n'es plus agent de la police outrage déglu leen bu baax de inculpation chef d'inculpation yi outrage à agent dañ ko dindi Babacar Touré bu mu ñëwee dem leen xool avocat wu Babacar Touré Kewelo bu ñu génnee dañ ne outrage à agent génn nañ ko parce que Babacar Touré face à face daf ko tu n'es plus agent tu as été radié depuis 2014 tu n'es plus agent de la police donc outrage à agent c'est faux ci saase gars yi jóg bu ko defaral carte moo tax carte bi ma leen won garde corps wonu ma leen carte police parce que moom dañ ko dàq ci police bi donc outrage à agent boobu n'existe pas parce que ça il n'est plus agent de la police ñu teggi loolu mu naaw Babacar Touré da ko tu n'es plus agent outrage agent da koy wax ko ku nekk policier wala ku nekk gendarme tu nekk ni agent tu juste garde du corps de Maham Diallo ñu tekki diffusion de fausse nouvelle lan mooy diffusion de fausse nouvelle bi est que xam ngeen ko daf ne moom moo taxaw moom mu taxaw ne Babacar daf ko wax ne moom jot nañ ko tëj ci kaso bi et pourtant audio yaa ngi fi moo tax mu ne ko da ngay teggi wax naa ko ko sama dernier audio nee naa ko Napel dama bëgg nga retirer sa plainte ñu jàll ci leneen mais si tu appelles à la guerre exactement il reste juste trois chefs d'inculpation parmi les huit ça fii laa toog di liggéey ak moom ci loolu trois chefs de cinq chefs d'inculpation avant ñoo woon appel ak dossier yu Babacar Touré teg ci table bi yépp ba teg rapport de la gendarmerie ñu woon appel muy teggi ba ko Touré di ko teggi di ko teggi ba léegi moo tax man bëgguma yegg ci audio yooyu nappel laa wax mi ngi may dégg dama ne loo ci bax ma ngeer ko je te dis de retirer cette plainte où tu auras tous les audios mafia yi nga def yëpp li nga wax tout tout tout tout dinaa ko teg fii si Sénégalais yëpp ñuy déglu audio par audio kon comme ni ñu rayee mànkam rey fi Didier Badji tëj la ci kaso yi noonu lañ lay reyee yow et tu vas le récupérer ñoom dinañ la rey yow tu vas récupérer cette plainte lan moo tax ñu téye foofu ba léegi ba ko traité di ko di ko di ko di ko golool il y avait de fausses nouvelles faux usage de faux diffamation injure publique usurpation dénonciation calomnieuse il y avait huit chefs d'inculpation mais après les preuves de Babacar Touré Kewlo ak menaces si may def moom Napel trois moo ci des diffamation moo ci def dénonciation et diffision de fausses nouvelles diffamation dénonciation et diffision de fausses nouvelles loolu moo ci des léegi yeneen yi fan la fan la fan la seey lan moo tax mu seey parce que Napel n'est pas <laughs> ne plus agent lan moo fi lii moo fi des ñett yi lañ ko toppee te ñi ngi xaar ñi ko téye di xaar moom mooy diffamation dénonciation dénonciation nga dénoncé kenn et diffusion de faux de de fausses informations te lii lépp benn bi la li mu wax ne Nappel dañ ko tëj yorul kayit bu ñu bu muy génne ne Nappel te c'est vrai Nappel dañ ko tëj <laughs> Nappel dugg na kaso. Nampel dugg na kaso ci a yu muy def nii yu mu yàgg a sàcc ay document di teg pour l'instant nag soreeguma ak moom lu ma koy mun a xamal mooy na recu na retirer plainte wala ñu dem ak guerre comme à la guerre les autorités vont nous regarder ñëpp ñu ñu ñu guerre ko ba mu jeex tàkk man ak yow pour muy clair loolu moo tax ñu supprimer ay outrage à agent supprimer yooyu yëpp parce que lu luñ ko toppee mooy Babacar a di qu'il était dans une autre affaire en prison nee na loolu amul et c'est loolu moo tax léegi mënuñu bàyyi sax ay avocat wu Babacar mu ñëw ñu gis mu gis Babacar Touré Kéwoulo mënut mënutu leen teg bët réew mi lépp mafia la réew mi dil la mafia réew bandi la bandi réew agresseur la réew mafia dëgg moo nekk Sénégal ku xamul nag xamoo ku yem ci suuf toogal ci suuf rek lu ñuy liggéey ci kaw ak di di yi nekk ci kaw mafia bi guerre bu nekk ci kaw bu ma ñëwee waxal leen toog leen rek déglu ku xamul na ah man moo laa de comprendre ma lii nan nga nii lan na nga man je t'explique parce que man je suis ouvert ku ma woo ci suuf sax laaj ma ma wax la soxoruma méttiwuma bonuma dama nekk ci sama guerre ku xamul ne ma ah, mais lii lan wallahi ma ma laajee la biir parce que loolu moo tax may live di laajee biir doomu aadama yi di partager ñoom li ma xam di partager ñoom li ma xam bërki démb am na benn waay fa laay tëjee sax parce que nappel laay waxal rek nappel retirel plainte bi ñu jàll ci leneen pare naa ci bërki démb am na benn waay xam nga autorités yi dofuñu dina jàpp parce que Seydina Mohamed man ñi nit yi ma xamul ñoo ma yàpp di ma lu leen neex mais garaawut ñoo bokk benn famille dañuy réeroo des fois c'est normal parce que fu may déggee information yi fu may kàjjee di def di sal pour jéem a détourner yenn affaire yi wala contourner yenn affaire yi ñu ko xamul mën nañ ma juger lu leen neex mais man dama toog xam ni dafa damay guerre ak ay doome xaram damay guerre ay gars yoo xam ni dañuy pare dañuy rey ay nit di daggate ay nit di suul ay nit di sànni ay nit géej di lakk ay nit moo tax may def doucement calmement ak lépp lu ma mën a dégg rek may def doucement calmement intelligemment